yaquulu wax na ne innaha nag bi ngeen war a rey baqaratu nag lay doon woo xam ne laa faaridun du am raj mooy nag wu màgget wala bikrun du daamoor mooy nag wu nawe xawaanun day digg doomu bay na saalika diggante màgget ak ndaw ay waay fa faloo daf leen maa tuumal leen yàlla digal muy dëgër bopp xaaloo ñu ne ko ëddoon laaja la la naa ñel ñu rëbb ko sa borom yi bëggil mu ni leen mu leeral la naa ñel ñu maa lëw nu xaawaan melo lay mel xam nañu xam nañu at yi léegi doon melo mu ne nee nga ñëw xaala Moussa ne inna woo naka yàlla yaqulu wax na ne inna naka nag wi baqaratu nag lay doon safraa mu di aju xonq faaqe on coy wala baqaratu nag lay doon lawnu ca kanam meloom safraa u day xonq faaqe on coy faaqe on dàkkantali xonq la ni tàll doone dàkkantali weex ni kukk doone dàkkantali ñuul ñuul kukk weex tàll xonq coy law noa melo wi ngeen di laaj léegi ñu ne waaw mu ne safraaw day xonq faaqe on coy toujours wu loog la woo xam dina neex naasiri na ku ca bët ku ca bëtam tegu te mu di sàmm waaye gars yi dañuy ëppal de ñu neeti ko doon laajale la naa ñeel ñu rabb ko sa borom yu bëyin mun leeral la naa ñeel ñu ma yi ban nga ban métier lay yor ban at ban melo ban métier boo gisee ñu di ko laaj nag mooy ina baqara nag yi xeeti nag yi dafa ba dañu bari nuroo alee naa ci nun dañu bari nag am nañu façon bu ne moo tax ñu di ko laaj wa innaa nun na la wóor na la muuta doona dinañu siiwal loolu sant insha allahu téere yi nee nañu bu ñu waxu woon insha allahu bii yàlla dee nañ ko melow nag boo xam ne bu ñu bëtti asmaan yi juróom-ñaar duñ ko am ak suñu juróom-ñaar mu demaat dellu si na leen yéen a ngi laaj mécc léegi laajoon ngeen at laajoon ngeen melo yéen a ngi laaj métier naa yi yéeman métier yi doon métier mu ne inna yàlla yaqulu wax na ne inna nag li ngeen war a lay bàkkaratu nag lay woo xam ne la loolu du nag wu ñu tàggat tàggat koo xam ne tosiru day day lar da tool buñ ko tàggati tàggat koo xam ne tos kii day nandal xaar sa ndey du doon nag wuy nandal ndey di roose du doon nag wuy jëkki suuf di béy te it musallamatun day mucc ci ayib yëpp geen ba du gàtt bët ba du patt béjjën ba du damm te it laa fi yetta deet weneen melo wenn melo lay doon fii xaar ah ñu ne ko nag laa ne léegi ji te indi nga bil àtt ci melo yu leer a leer daal di wëri nag wa fekk bos bi am ko ñu jënd ko bi mil i miski xaar léeben fa sa ba ñu rendi ko dóor ko mu jóg wa maa kaadoo jóge ñu woon bul woon ak insha allahu yëf ko loolu di mën a def nag woowu le ñu ne ko ko bàcc mu ne bëri na diwama rey loolu nag li ko waraloon mooy iskutul ba ngeen reyee nafsan bakkan fa daaraatum ngeen jiiñante fi a ca rey ga xam nga ne walaw yàlla muxrijun dina weer maa kuntum la ngeen nekkoon takkatumoon a dina bëgg fokkul naa booba la waxee nag ne idil boobu dóor leen ñu bi ba baadiha benn cër mu dóor ko mu jóg kasaalika noonu waa ji jógee wax ak yéen yu yi lay dekkale alaxira laaw yàlla mawta way dee wu yurikum dina leen du deñ di leen won ayaati tekkali kattanam la àlla ko ngir yéen tax xeloo na ngeen ànd ak xel yéen a ko gisandoon waaye da ngeen fi jóg ñu fàtte ko suma xasat dox gannaaw wow koŋ xuloobukum seen xol yi yéen yahut yi ba nanguwu leen a nangu dëgg min baay di saalika ginnaaw bi ngeen gisee kooku ñu dekkal soo gis seen xol yi léegi kat ijaarati mu ngi mel new daj ci wow aw ëzëdu bal la aw jugi place bal la déedéet sax ëzëdu moo gën a tar xaswatan ci wow ciw doj ndax li tax doj yi am na ci yiy génne ndox wa inna min al ijaarati am na ci yi doj yi lama yatafajjiru yoo xam ne dana balle min bu ci biiram la ma xaaru daw ndox wa inna min ha am na ci doj yi lama yasaqaqu yuy xotteeku daanu fa yuxruji génne min du ci biir fa mu daanu ma ndox wa inna min ha am na ci doj yi lama yabatu yi xaweeku ci ko ni suuf dal min xasatillahi ngir ragal yàlla te loolu amul ci yéen na leen wóor ne wama laaw deet yàlla bi xaadir lu muy sàggan lu toll ñu tarfatal ay ni ana taamuruna ci li ngeen di liggéey guddeeg bëccëg xam na ko te dina ko fay yéen nag bu ngeen yiboo noppaliku yéefar yi duñu gëm afa tasma una na ngeen di doxe ginnaaw gàtt xel yéen jullit yi ba xemem an yuminu ñu gëm ñoom yowit yi làkkum ñeel leen mënu la nekk ngir waxat kaane nekkoon na fariqun lu bari minum ci fori yi yasmauna di dégg kalaami laay tawreet suma yaarifuunahu tox gannaaw ñu sens bindin waa waxin wa min baadi ma xaqaluhu ginnaaw bi ñu xamee ni nii la te wóoru ñoom bañ koy sant yaalamuuna ñu xam ne nii ñu sant yi dëgg kon nag duñ mën a jur ku gëm sadaqallaahu al-aziim wa balaga rasuuluhu al-mustafa ñu amoon màkk ñoo amoon ay yéefar yéefar ñett ñeenti façon la kufru nifaaq ak kufru xinaad ak kufru juhuud ak kufru shirk Medina ay yahuud ko dëkkee yahuud yi ñooy ñan ñooy ñi doon jëfandikoo tawreet ñoo jàng nekkoon ci diina Makka ay majoosu ko dëkkee ak i musrik gis nga yéefar ñaari façon lañu benn bi ëpp wëloor benn bi yéefar boo xam ne nekkoon na ci diina mën a jàng ak yéefar bu musul a xam luy diina kële la ñuy wax musrik kii la ñuy wax kaafir kële yoon may la nga takk seen jigéen may la nga lekk seen ren bi waxul it nga àbb seen ndab def ci ñam ki ci des yoon may na la nga takk seen jigéen doonte tuubul mu continuer ci seen diina seen rendi ak sa ba sa yem tubaab bu rendee ak abdul asis ak abdullah bu rendee yem képp ab yahut bu rendee moo ko rendi ñoo ñoo yem képp seen jeeg joojoo jeeg ju Ablaay Saar mii jure yem képp ci takk ko yoon may na li nga lekk seen lekk lu tax dañu jàngoon ne ci diina diine ji nag la ñu annulé ne yàlla arrêté ñu bañ ñoom continué ci ñële nag musuñoo jaar ci benn yoon diina moo tax wala tankihul musrikiina ata yuminu wala abdun muminun xayrun min musrikin wala ajabatko bu leen fab yéen kilifa yi bu leen fab seen doom yu jigéen yi di kan may yéefar bu góor yéefar ci ni ma la ko mën a waxe fii moo di ah waaw tigi gaa yooyu gaa yooyu kenn du leen tudd dañu mën a xeex te bari jikko waaye ñooñu ak ñi deme nii séeréer si ñoom sax ak ñoom manjaab yi portugais yooyu lay nga xam ne nekk ñu ci yéen diina ñooñu la ñuy wax musrik waaye nag ëllëg kitaab ñoom ñoo di nasaraan yi ñooy yaxut yi mën nañoo takk seeni doom léegi kii madame la nga bëgg ko mari ci jullit yoon na na ngeen si sans condition mu tuub am na ñuy di nga sax naan sàngara su muy naan muy fekk sa doom ci biiram nag am na ñu wax loolu parce que bu ëmbee di jëfandiku sàngara sàngara si di fekk sa doom ci biir bi te lu yaay lekk foog doom lekk ci parce que wax naa leen keroog ci gàmmu gi ne gis nga jumbux bii nga gis ci nit mooy communiquer ak lekku ndey xale bi solom lay doon buy ñëw ci moom moo tax boo dee ñu dox ko waaw yooyu nga gis gaa yi di ko santal nit ñi ci hôpital yi hôpitaux yi pour mu di ci passé ñu ngi ko jële ci jumbu boobu nga xam ne boo juddoo day takk ci sa yaay takk ci yow foog dañ koy dox nga mel ni baag bu ñuy yaam mooy liggéey boobu ngay gis boo màggee ci sa digg biir foofu solo ma fi nekkoon bu poose ji fokk yàlla poose pour si ravitaillement di ñëw direct moo xereñ rabbi subhanahu wa taala ñu ne nag yéefar bi nga takk mu ëmb sa doom di naan sàngara xale bi jël wàllam mais yoon nag qu'importe taxul terewul empêché wul nga mën ko takk mu doon sa jabar mais nag benn fa la am nag léegi waaju góor ji moo di catholique sa doom di jullit foofu nag yoon day bañ yow ku góor ki yéen a may dégg bu baax yow ku góor ki soo dee jullit ku jigéen ki di catholique mën nga koo takk sang mu tuub mais nag bu fekkee ne ki ne ku góor kee catholique ku jigéen ki di jullit yoon day bañ foog mu tuub am déet parce que ulaayka yaddaawuna ila néebi الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك على نار فيها خالدون kii la booleel yow yaa ngi ko jëmee àjjana yaa ngi ko tiré jëmee àjjana ku jigéen kii sëy jullit bi jullit bu góor bii nag ba bu yéefar bu góor bi nag bëgg a takk sa jabar te moo yor commandement bi te doom gis moom lay topp askan yaa ngi ak mbeg nga yaa ngi yaa ngi yokk yaa ngi sakkanal kéefër waaw looloo tax yoon bañ ko gaa yi nag léeg-léeg nga gis ci man day ñun ñi nga xam ne day dañ ñu tuddee taalibe yu bari di jaar ci ndox léeg-léeg gis benn waay bu ñëw raj ne dama tuub pour ndaw si parce que bàyyi ba am na fulla ba ñu ma la koo may mais foog nga tuub alors mu ñëw tuub julle yow tisbaar julle yow taksaan alxayri jib mu am ñaari fan wala ñett raj daal di ko fi naan koy koy yow da nga defe ne jaral nga ma bàyyi sama diine kay yow di wax yi kenn xamul man am naa ci ñu bari fi de naafiq da ngeen def seen bopp ne nit yi da amul yéefar naafiq fa nekkoon mooy ñu jàng xam yoon bañ ñoom nag leen taxoon a bañ dañ ne suñu delloo seen nas rasul seeni mbir dafa dal di dafa dal di néanti dootuñu dooni kilifa dootuñu yor poste xaal yi dootuñu appe loolu màkk iqra fa jëkk a wàcc wóolil mutafifiina fa mujjee wàcc quatre-vingt-deux saar la fa rasulaay arrosoir keroog ci réception ba bi mu yàlla tas lañ ko wàcce liif laam mim salik moo jëkk a wàcc ci Médina isaa jaana surulaay fa mujjee wàcc aayee nag comme ñaar la bii service la bii pour personnalité la aaya bi mujjee wàcc ci service bi santaani mooy al yawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'amati wa radiya lislaamu lakum diina keroog bi mu wàcc àdduna bi de quatre-vingt-douze jours la fekk nag aaya la boo xam ne dafa xëbalaate di wax affaire alaxira kon wattaqu yawman turjahuuna fihi ila allahi summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat mu mujjee wàcc kon ñu ngi ci Medina wax waa Medina li ñuy waxal way sa làqu waa Medina la yowootu Medina yi yowootu Medina yooyu mën a jàng yaxawut yi bu ñuy dox ci mbeddi Medina ba dajeeg groupe jullit yi ànd ak nabi suñ jàmm sante waaye yéen ci lu ngeen nekk xaalu yowut yi ne leen amanaa dugg nañ ci li ngeen ne noonu it gëm nañu yowut yooyu wax loolu de ñuy wax ñu ne buñ dajee muy tàllaxu ci bopp Égypte bi ndéem daje nañu ñoom yowut yi ñu dajeeg la siina amanoo jullit yi nga xam ne ñoo gëm rasul ah waaw waaw naafiq yi bu ñuy dox ci mbeddi ndakaaru wala mbeddi tëngéej fekk na bee ngi sanc si ànd ak ci gaayam fekk fi benn benn juddu yu gëm ñooñu bu ñuy dox ci dëkk bi ba dajeeg seen moroom yooyu ci foo xam ne du markasu diini du markasu kuffaar maanaam ñu daje foo xam ne du siège social bu midi bu jullit yi du siège social bu yëfu yi dañuy dox rek daje foofu dañ naan amana ñeent gëm nañu léegi jullit dana comme yéen ñu tas ñii dem ci markasu diin maanaam c'est social yi l'islam ñii dellu ca c'est social yi yëfër gaa yi doon wax gaa yi nag gëm nañu seeni kilifa ne leen dégg nañ ñi signalé ngeen ne ci parti ba li ngeen rallier ñuy miim nag déglu alxuraan de kilifa ya leen di yedd ne leen yéen dof ngeen su ngeen dajeek waa kër rasul naan leen gis nañ ci tawreet ne Mohammed la yàlla yónni mais loolu loolu xam nañu ko mais duñu ko wax parce que aussitôt nga wax ko rek may nga yàlla pëlum bu mu dalee ci sa ko déggal déggal déggal yàlla ne xanaa dañu réeré ne buñ ko waxul xam naa ko buñ ko waxul xam naa ko bañ ne rek nga leen du moom rek déggal say say moom la wax nag ne buñ leen neen amana gëm nañu ca mbedd ma lañ dañuy waxante loolu waaye wa isaa xàllaa bu fekkee wéet na raadahum kilifi yéefar yi ilaa naafiqi ilaa baadin jëm ca ñi nga xam ne ñoo di ñoo di seeni njaboot xaaloo kilifa yi na leen atu addi zoolahum da ngeen di nettali jullit yi bi ma fataha ci xam-xam ba nga xam ne may na ko law ya aleykum ci yéen li leen yàlla xam la xawlu xamal ci tawreet ne kay Mohammed da ngeen koy wax gaay su ngeen ko ko waxee nag su ngeen leen ko waxee ba noppi su ko defee lu juukum ñu mën ci dëgg yey leen inda rabbikum ba ngeen dajeeg yàlla ne gaa yaa ngi xamoon nañ ñu ko ba wax ñu ko afalaa taaqiluuna du ngeen xel lu ba bañete leen ko wax yàlla tontu ne ah ñoo dof awala yaalamuuna xamuñu ne inna allaha yàlla yaalamu xam ne may siwuuna li ñu déyante wu maa yow li noonu ak li ñuy wax ci ko kon kay mu fula nëbb lañuy wax ne moom la pël ba waxoon doom ji am lu mu benn doom bëgg ko loolu doom ji rafet doom ji feebar mu tiim ko gaaw ne kii daal buy wér rek ma di ko joxe jàngu doom ji ne ko ma bam maa bañ mu bàyyi doom bi mu ngi feebar bi bëgg a dee waaye bëggul dégg jàng mu bàyyi bi ne ah yëpp buy wér rek di dem daara ji doom ji ne ko papa maa bañ mu dal di ko déy ndànk ne ko ñu nax yàlla tan accu ñu nax yàlla tan ñu nax yàlla tan donc maanaam waaye cause bi sax du mu ne day nax yàlla su su ko defee nag musi gi war wax ca ko ni yee bu ñu wër rek dem daara ja jàngi alxuraan gos bi dellu ba ñaat musu dafa tolloon na fa bi ne ko waaye noppi rek damay nax yàlla ngeen leen di wax li xew da ngeen leen di wax li ngeen xam li yu ësuukum ñu mën cee dëgg layoog yéen yeey leen indarabikum ñoom kat ñoo wax gars yi afalaa tax xiloona du ngeen bàyyi seen xel ci li ngeen di def nag du leen jik ëllëg foofu la ñuy yem yàlla ne xanaa ñoom awala yaalamuuna xamuñu ne inna laa yàlla mi ñu ne ba mbir mi yaalamu sirrax wa najwax soo ko sa ko wax ci suuf yem yàlla xam na ko neexul ba neexul nag waaye ay la yeneen nit ñi ummiyuuna dëgg dëgg dëgg am na ci ñoom ñu mënul a jàng am na ci yow yu mënul a jàng dañ leen di trahir di leen nax di fa baat di ko soppi di fa araf di ko soppi am na ci ñoom ummiyuuna ñu mënul a jàng ñoom laa yaalamoona xamuñu alkitaaba tawreet su la neexee it nga ne laa yaalamoona xamuñu alkitaaba aw araf boo bindee lif duñ ko xam boo bindee min duñ ko xam boo bindee del duñ ko xam gaa yi leen tra yi rek yu bool leen waaye ñu ngi xool yu sell ci seen biir maa ngi ne ba léegi dafa xew da ngaa gis koo xam ne lii maanaam sell na mais que mu wékk boppam baaxul kooku di ko rulle rek di ko rulle rek di ko rulle rek di koy jaarloo ci lu dëgg di ko liggéeyloo di jël aleelam te kooku ku ko wanoon dëgg mu jub am déet am na ci ñoo xam ne ummi yu na da maanaam yetteel waru ci jërëjëf laa yaalamoona xamuñu alkitaaba aw araf ngay wax xamuñu araf ila amaani nga réewee seen mérite rek li ñu leen wax rek ñu ne loolu mën naa am loolu dëgg la te noonu wa in hum déet ñoom ñooñu lay ñu weddi yonent bi illa yadunnuuna ndaree dañuy wéy ci njort fu waylun toroxte fu wayrun duma yu sax te yàgg li la si na ñeel na ña nga xam ne yekk tuggoon na danañu bind kitaaba ay baat bi ay diihim ak seen loxo su ma yuquuloo nañu xëy génn di wax ñu mënula jàng ne haala leenu bind min indillahi yàlla ko wax noonu la jógee ci yàlla lu tax ñu di ko def liistoroon ngir ñu jëndi bihi ca wax jooju sama nañ jëkk xalilan gu gaaw a jëkk muy àddina fa waylun duma yu du toq lahum yenn gaa yi def loolu mimma katabat ngir la nga xam ne bind na ko ay diim seen loxo wooyu doon yeneen du mayit lahum ñeel na leen lu tax mi maa yekk si boon na ngir lañ ca feyeeku ca alel mbind mi laaj nay duma alors li ñu jëlit ci ngir laaj nay duma alquran dafa gën di leer dafa gën di leer dafa gën di indi biyaan bayaan fu waylul fu waylul leen seen yaktubuna alkitab bi ay diim ma a toroxte ñeel na ñi bind ñi bind ñi bind ay këyit ci seen loxo téere yi ne bind kañ loxo koy def kon alxuraan lu mu ci indi ci seen loxo mu ne day bañ ku bindalu ñu bindal ku lu dul la mu santaane te léeg-léeg mu am li nga ne diwoo ma bindal leetar fekk diw bindul leetar ba dañ ko ko bindal te lay bindal leetar ba nag mën naa bindal lu li nga ko dicté wàññi mbaa mu yokk kooku lañ koy jéggal ki tey nag bind la wax ki tey bind ak loxol boppam fa waylu li la si yëkkatu boonaa bi ay diim bi ay diim bindalu wuñu dicté wuñu dañuy bind ak seen loxo soppi melaw na bi ne ku gàtt la te na bi dafa gudd ne ne ku ku ku jëxam la te na bi dafa leer dañuy xam nga sawret dañ ci dañ ca dañ ca dañ ca sensé carte d'identité ne bi dañ ko sensé bind yeneen melaw wudul wi ne bi mel li génn nag naan leen xool leen lii xool li ci tawret ndax dëppoo la kii de moo di moo di Mohammed bu ñu xoolee tawret fekk loola du dëppoo melaw ne bi te ñoo ko sensé ñooñu nag la yàlla ne dinaa leen duma ñaari duma benn bi bind giñ ko bind benn bi ger giñ leen ger ndax biñ ko bindee joxe gaa yi jox ko gaa yi gaa yi dañu continuer di seen taalibe di leen jox ay addiye addiye yi dina laaj duma seen wuri woowu dina laaj duma waaw fa waylun lahum mimma kasabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun ne nañu lan tamassana naaru illa ayaaman maaduda ak ñu gàtt xel dëgg la daal ñu dem safara dina am temps bi ñun jàng nañ ci tawreet ne ko trahir sa diina di nga dem jaanama xam nañ ne dinañ dem jaanama mais duñ fa yàgg duñ fa yàgg baaxul ay quelques jours rek lañ fi am ay am la baax rek lañ fi benn minute benn seconde benn genn wàlli seconde jaanama téere yi ne nañu yéefar bu àllaaxira suñ ko téye nii la téye sama wér ne ko capp nii ci jaanama ni pot bi ci mën a ko seen pet nii laaj ko ndax mos nga am xéewal bu nga juddoo démb mu ne mukk yëfa bi gën a gudd fan ci àddina ëpp ci xéewal la ñu ne bu alaaxiraa suñ ko jàppee ni puso ne ko capp ci safara ne ko seen pet dina ci jëlee dañari mitit woo xam ne buñ ko laajee ndax kër ba nga juddoo ba tey mës ngaa am jàmm mu ne mukk ngir mitit wa jullit bi gën a tumuranke gën a torox ëpp natt ci àddina gën a gudd fan bu àllaaxira buñ ko ne capp ci àjjana nekk seen pet ne ko ndax mës ngaa am na xar mu ne dugg ma ci dugg léegi ngir neexaay ma ko cay topp lu lu grave noonu nag metti noonu nga naan ay fan laa fay am quelques jours rek lañ fi am quelques jours yi kat quarante mille la li tax ñu baaxal ci quarantaine yi moo di seeni maam ba ñuy jaamu yëkk wu ngeen jàngul dimb quarante jours lañ ko jaam ñu ne diiru quarante jours yooyu maam yi jaamu yëkk wi la leen yàlla di lakk te yàggul lan tamassana naaru illa ayaaman mahdada ci yàlla ñu dem xool laajal ma leen yow Moustapha bëgg ngeen defante eeden kóolóoy indallaayi ak yàlla ci ne quelque jour ngeen di am safara su fekkee loola day wax ngeen dëgg ndax falan yox li fa du wor mukk laaw yàlla eeden kóolóoy gi mu def bu fekkee da ngeen bindante loolu ak yàlla ba mu signé ko day dëgg ngeen wax ndax yàlla lu mu wax def am déedéet déedéet defante wu leen ak yàlla ko leen de yàquloon la ñuy wax rek muy alal laay jëmee ci yàlla maanaam tax la mu ne lu ñu xamul dañuy fen rek male ah wallaay male baat la buy dàq li mu dégg di saxal li mu bëgg indi doo monsieur le posé questionnaire doo dem tey Dakar nga ne ah wallaay ah wallaay yaa ngi dàq bañ a dem Dakar di saxal ne di nga dem mooy bàllee dañ ne ay fan la ñu am safara yàlla ne déedéet dinañ am lu ko ëpp bàllee ah wallaay dinañ fa sax lu ci ëpp ndax lay tax nga xam ne dinañ fa am lu ëpp fan yooyu mooy lan mooy man kasaba képp ko def ne sayi atan bàkkaar def bàkkaar wa ahatat ba wër ndomb ahatam mooy lu dale fii ba dellu si waat fii mbaa mu dal fii ba dellu si waat fii kii lu ne di du ahatta soo gisee ñu ne ko armal aj araamal nañ ko muxitu wal muxitu lu wër për lu wër cër lu wër cër lu nekk ku armal aj dootoo ko yor kon jaaru day génn njël day génn tubéy day génn mais lu dal fii te dellu si waatul yoon may na la ko dañuy araamal ko aj ko armal aj al muxitu lu dale fa mu dale ba dellu si waat wër la wala mu xeetu ak lu pusalaal yooyu ñaar lañ koy tere li ngay làmboo sax doo ko yo doo ko ñambaas yoon mayu la nga ñambaas ko lees be yaa nga mën ci am taraxlaay am ci kenn ki a ngi fàttaliku papa Alaaji Moussa Ndour yàlla ko yàlla yërëm ilimaan la woon ci dëkk bi ñoo ajandoo makka ku def bàkkaar ba bàkkaar bu wër la ndomb xam nga luy bàkkaar bu wër ndomb nit xam nga la ko de mooy sa loxo def bàkkaar sa gémmiñ def bàkkaar sa tànk def bàkkaar sa nopp def bàkkaar sa awra def bàkkaar léegi sa côté yëpp daj na mais soo amee côté boo xam ne côté boo xam ne bàkkaar bi ak siw fii dafa commencé fii ba ci sa faar yem si bàyyi côté bi wala mu ñëw ba ci mbagg mi yem si bàyyi ginnaaw gi am nga foo génn bu mucc waaye man axaatat bihi xatiatuhu koo xam ne sa bàkkaar wër na la ndomb ko te bu la yàlla joxoon pour nga dimbandikoo ko tooñ nga ca yàlla mu joxoon la ko dimbalee ko nga soppi ko arma xexe ko bët yi de ci xol lay gaañ nga xool ci lu ko naqari loxo yi de ci bu lay gaañ nga def ci lu ko naqari tànk yi de ci doxu bokk di ci jëm jàkk nga dox ci nga dox nga dox ci dox doxu bokk alors léegi yow mattan sama la kooku fokk mu lakk lu ëpp ñeent fukki guddi man axata bi xatti ëttuuf wulaayka asaaba naarium fiha xaalidoona ñooñu ñooy dugg jaanama te bu ñu ko duggee du ñu génn dañ fay continuer faw ndax dee dootul am bu ñu duggee àjjana ba ñu dugg àjjana yàlla ñu ci yàlla boole ñuy dugg safara ba dugg safara yàlla ñu ci yàlla musal suñu borom dana génnee dee ci boppam keroog la ko nit ñi mës a gis dee mu ngi bindoo ni xar ñeenti tànk la am ak béjjin te it xar mu cuxur la te ñuul dinañ ñu ko won ndax xam ngeen kii ñu ne waa safara ne déedéet ñu ne kay dee waa àjjana xam ngeen kii ñu ne déedéet ñu ne mooy dee nekk daal di ko tër nekk fàpparandi pour waa àjjana xam ne dootuñu dee waa safara xam ne dootuñu dee rek nañu dee alors ku mu fekk fu bon nag musiba dal na la wala gas am naa dem saa xaalidun ñu dem yàlla yàlla boole ci ñi wala sina amanu wa aminu saalihaati ulaayka asaabu jannatum fa xaalidun ñi oor sangu set julli génne asaka saraxe dem makka ñooñu ñoo moom àjjana ñoom it xaaliduuna fiha dañ fay continuer faw nga dem defoon naa man yàlla benn pacte maag bani israila ca tawret def naa ko yéen def ko ñëpp waaye ñoom dañu trahir lan la woon koppi baa ngi koppi pacte ba ca tawrete gi moo di an laa taabuduuna illa allah benn wa bil walidayni ihsana ñaar wa sil qurba wal yatama wal masakina ñeent wa qulu linnaasi husna lii laa defante woon ak ñoom bu ñooyu pare nag wa aqimu salata juróom benn wa atu sakata juróom ñaar ñu signé ma signé waaye ndeysaan su ma tawalaytu fàttaliku leen is aqas naa baa ñu defanteeg seeni maam nun yàlla nu defante misaaxa bani israila sunu kóllëre noog bani israila ak sunu contrat ba ne leen laa taabuduuna bu leen jaamu illallaha ku dul yàlla benn an na ngeen defante njëkk bil waalidayni ci ndey ak baay moo di loo am mu am ca lu mu la sant nga def ko soo ko mënul jéem ko bu mu yem nag ci ndey ak baay